bismillahi rahmani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi institut Cheikh Chouaïbou Mbacké Khadimou Rassoul pour la mémorisation du Coran et de l'éducation islamique ginnaaw bi ci amee ndigalu Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides Serigne Abdoul Fattah Mbacké Fadilou ak it ci kilifte fu Serigne Khadim Ndiaye al imam mbokk yi direction bi ak mbooleem parents d'élèves yi institut Cheikh Chouaïbou Mbacké Khadimou Rassoul ak it personnel bi yëpp ñoo leen di yëgal onzième promotion bii nga xamante ni ñoo war a génn nag mokkal alquranul karim fu seeni ko tari incha allah rabbi dimanche juin 2024 ngay tàmbali 8 heures 30 minutes jàpp 17 heures bu jullee ba noppi ma ngay xewee ca cité domaine ginnaaw cité Aliou Sow ca golf wetu jàkka ja di villa numéro 65 ñu ngi si nag sàkku teewaayu ñëpp ñu ni fàttewuñu si kenn bàyyiwuñu si ñenn bu ngeen si bëggee ay renseignements mën ngeen woote directeur institut bi di Serigne Mor Talla Ndiaye si 77 717 27 66 77 528 99 11. النفاثات في العقد